ak ñi nga àndal ñu ngi leen di wax bismillah ni ko xalifa bi waxee ci kër yàlla ci kër yonent bi kër cheikhana ahmad at kër cheikh omar radiallahu taala anhu euh, fii mooy kër Thierno Mountaga Ahmad na Mountaga Ahmad nag suñu ko buggee wax Euh, doy na rek ñu wax ci lenn moom si moom tuuti gàmmu gi fu mu toll tey yàlla ak moom la en 1946 la commencé def gàmmu fii si këram moom Ceerno Muntaqa radiyallahu taala anhu ndax bi mu ñëwee dafa ñëw fekk si pàppam Ceerno Saidu Nuur jóge kër baayam fale si boggee yoroon fa daaraam moom Thierno Mountaga di jàngale amoon ay taalibe yoo xamee ne dañ doon def mawlud at bu jot foofu ci boggee bi mu ñëwee fii fekk ci baayam bokk ni ci teggin soo ñëwee bul jiitu dangay topp ci ginnaaw mu ñëw topp ci ginnaaw baayam Thierno Saïdou Nour bi mu gisee na Saïdou Nour dafa am ahdi bu mu defoon ak alaji Malik radiyallahu taala ne ñëw naa si yow teg naa sama loxo si sa loxo duma commencé dara duma def dara si sa si si sa ginnaaw mooy lan su ma fekkee ngay def gàmmu damay ànd ak yow def gàmmul su ma fekkee ngay def wasifa damay ñëw bokk ak yow wasifa mais duma sos dara Ceerno Muntaqa euh, gis njabootu Fuuta bëri woon fii Dakar en 1946 mu ne gisanteeg sëriñ yi mu war a gisante yi ko nekk yu fi nekkoon ñoo ko magoon muy Thierno Hamidou si ak teerno Daouda Sy si fële ci rëbës euh, mu ne leen a ah, rafet na day comme ñun demuñu Tiwaawan te suñu demoon Tiwaawan tamit duñ dégg luñ fay wax rafet na ñu dajale njaboot gi ñu bokk fenn di def suñu gàmmu comme góor gi moom fële lay defee gàmmu ñun ñu def suñu gàmmu moom na mu indi xalaat boobu ñooñu tamit wuyu si ko si xalaat boobu ñu defee ko Rue Neuf kër ku ñuy waxee Baba Baba njaay foofu lañ ko defee ñu ngi ko commencé woon benn kaasu war warga ak peñ suukar foofu la mawlud bi commencé bi mu si at bu si topp 1947 foofu luwaas la woon ki fa nekkoon locataire la il faut mu déranger ay nit Thierno ne kon nag ñëw leen sama kër man maa ko moom fii si rue 19 angle mu ñëw fii moom Thierno Mountakha commencé fi gàmmu gi ak boobu ñu bari du ñu woon dem Tiwaawoon ku way ku mel ni soxna Thierno Saïdou Nour bu ñuy wax Goggo Koyta kooku bi mu ñëwee gis gàmm gi am na nit waa Fuuta yëpp ñëw nañ fi mu nekk gàmm gu neex mu jóge fi Thierno ñem Thierno Mountakha du laaj no Seydou dara ñemewu ko laaj dara soxna si nag moom ragalul ceerno ñëw na ceerno gàmm bi muntagaa bi gàmm bu muy def këram xajatu fa dama bugg nga wutal leen bërëb foo xamee ne mun nañ fa defee ndax am nga doole bi mun nga ko no ne ah man de am naa bërëb boo xamee ne mu ngi nekk fële si faas su ñu buggee àll nag amul dara lu fa nekk su ñu buggee ñu dem foofu buñ bu mu ñëwee Thierno ñëw nuyu si ko suba Thierno suba bu jot day dem foofu nuyu ji ko bi mu ñëwee mu ne ko Thierno amal naa la bërëb pour sa gàmmu gi seetal say taalibe ak say soppe ngeen dem defar ko moom Thierno Mountaga mu jël taalibe mi ak xaritam yi ak am di jàmmam yi ñu dem defar balaas boobu ñu tuddee ko xalwaar foofu lañ doon defee gàmm ñun ñëpp bu ñu juddoo foofu la ñu fekkee ñuy def gàmm en 1980 ceerno Saydou Nour génn àdduna ceerno Muntaga ne ah xalwaar day miin na yonent bi sallallahu alayhi wa miin na ñu defee fi gàmm mais lu gën a rafet ku xamee ne moo sabab lii yëpp ñun tam ñu dem toxu dem wettali ko foofu loolu moo indi ñu jël gàmmu gi yóbbu ko foofu ci rawda bi loolu moo indi ñu koy defee foofu ba bës ni ki tey Ceerno Muntaga génn na àdduna dem na mais bu muy dem lu mu leen wasiye njabootam li ma doon def lépp bu leen si bàyyi dara ma daani alhamdulillah mu jël ko moom tam li Ceerno doon def benn mu def ko fukk yaatal ko ba mu gën a yaatu aduna bi yëpp di ñëw foofu di ko fa fekk si lii moo indi gàmmu gi foofu kon gàmmu gi commencé na depuis 1946 at bu jot nag bu jëkk ba xal bi mu nekkee xalwaar état bi seen teraanga fépp fu ñu tàntal yonent bi ñoom tam dinañ déplacé wu ñëw Thierno Mountaga gis suñu déplacé woo ñëw dina am lu bon deux heures de temps yoo xamee ne dinañ ko jël si guddi gi te guddi gi dafa xat pour moom mu ne lii de laa am xalaat bii laa am bëccëg bi ñu teralee ko nguur gi ñu war a ñëw représenter état ñu ñëw bëccëg bi ñu gisanteeg ñoom toog waxtaan ak ñoom saafanteeg ñoom ñaanalanteeg ñoom eh, suñu demee guddi gi yëpp fekk ñun ñoo ko moom jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waral ñuy def cérémonie officielle bëccëg bi guddi gi gàmmu gi rek lañ fay def kenn du fa tudde keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii nag ñu ngi leen di wax bismillah ñëw ngeen yéen tam bokk ak ñun si taxawaay bi ndax li ñuy yëngu li yéen ñëpp doomu Sénégal ngeen yéen ñëpp gëm ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu koy màggalee su ngeen ñëwee teew da ngeen di gën a taaral mbir mi yëgal ne seen njaboot ñoo fi nekk ndax li ñuy wax li al sultaanu zillullahi fi ardihi ku jiite réew moom mooy keru yàlla si suuf ker nag su nekkee keru yàlla moo nekk ci suuf ñun njabootu Cheikh Omar njabootu Thierno Muntaka njabootu Thierno no Nour nur ñu jàngal koo xamee ne yàlla moo ko jiital nañu topp ci ginnaawam suñu ndax ku ku ko weddi dafa mel ni yàlla nga weddi ndax yàlla moo tànn su yàlla tànn qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha su yàlla defee dara nga ne ko du fi am soo moytuwul yow yaay sonn ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci hadisul qudsi euh, man lam yaqbal bi balaa'i walam yarda bi qadaa'i fal yatlub rabban siwaaya wal yaxrut mi ardi wa samaa'i képp koo xamee ne dogal naa dara li ma dogal neexu la génnal sama suuf génnal sama asamaan nga wut beneen yàlla bu dul man kon lii la ñu jàngal ku yàlla fal teral leen ko jox leen ko gëdd ndax yonent yàlla yuusuf yonent la mais buur la en même temps yonente yàlla yaqub baayu yuusuf la moom mooy baayu yuusuf mais bu ñu ñëwee dajeek moom seen waajur ñu toog wax bu mu waxee lan la ko wax mu ne ko farafa ab way alal ars mu yëkkati leen ñoom ñëpp yaayam ak papam teg leen ci kaw fa xarru lahu sujjadan ñoom ñaar ñëpp ñu wàcce si suuf fekk ko lu tax li mu nekk bu buur yëre yàlla bu mu sol bi moo tax ñu màggal ko kon nag ñëw ngeen ci bërëb bi bugguñu guddal ñëw ngeen si bërëb bi ñu leen di fàttali rek Cheikh Omar am na lu mu def si yonent bi sallallahu alayhi wa téere bu ñuy wax safinatu saada téere boo xamee ne gaalu texe la ko tuddee mu ne mu defar ko woñ tagg si yonent bi bi mu jëlee dafa jël xarful alif mooy nekk si euh, arab xaraf seen araf alphabet alphabétique vingt-huit la araf bu nekk mu jël si tàgg si yonent bi lu mot trent wala quarante bayt di ko tàgg moom yon di tàgg di si tàgg yonent bi alif mu def noonu ba mu def noonu ba mu xarfa yëpp jeex vingt-huit yi jeex mu ne ah weer bi dee trent la il faut ma indi beneen araf fan laa koy jëlee mu xalaat boole laam ak alif nee na ñaar yooyu araf la mu def baab boo xamee ne laam ak alif ñoo si nekk téere boobu nag da ngeen dajeek euh, Thierno Madani si coobereem mu jëloon ay ulama yu différent ñii Mauritanie ñii Sénégal ñii Gambie ñii euh, Maroc ñii Algérie ñii Tunisie ñoom ñëpp ñu xool ku nekk jël si xët ñu jël xët boobu ku nekk def ko ndax wax ji mu Seex di wax dafa kawe du intellectuel bu nekk ko mun a xam soo si tiimee mun nga si jaar ba sonn mais doo comprendre lu muy wax wax jooju nag muy jéem wax jooju lañu lañ ko la jël Ceerno mu ne nañ ko seet settantal ko def ko euh, traduire ko defaraat ko euh, def ko euh, interprétation boo xamee ne dina gën a oyof xel yi mun ko jàpp téere boobu nag mot na ñu ko commencé woon avant Covid bi alhamdulilah loolu moo ko tardeel mot na ñëw na si loxoom incha allahu dinañ ko publier loolu nag tamit seen teraangala la dañ leen yónni su ngeen demee ngeen jotal ko ñi leen yónni téere boobu mu ngi fii si loxo yi jot nañ ko di leen ñaan yal nañ yàlla taxaw yal nañ yàlla may barke yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu jafe woon yal nañ ko yàlla defal réew mi yal na fi yàlla wàccee jàmm xam nañ ñu si xëccoo lañu nekk suñu borom nee na wala tanaza'u fa tafsalu bu leen xëccoo su ngeen moytuwul ngeen échec xëccoo nag si bi lañ ko fekk si règle yi lañ ko def tubaab yi teg nañ ko suñu kaw loolu lañuy def il faut élection am élection nag soo xoo déggee lu ñuy wax élection kuy xëccoog sa anniversaire anniversaire adversaire il faut nga jéem ko wàññi jéem a wax si moom lu wàññeeku jéem a gëstu si moom lu wàññeeku yooyu yëpp lislaam daf ko tere mais comme noonu la amee yal na yàlla jàllal ko si jàmm képp ku ko yàlla jox alhamdulilah ñu ngi koy santal yàlla di ko wan ne tamit na xam ne moom tam lu abu lu Seydina Aboubacry waxoon wullitu aleykum walastu bi xayrikum jiital nañ ma si yéen il faut am kenn ku jiitu mais gënuma leen di gestu si ginnaaw comme nu Souleymane doo wax laa aral hudhuda gisuma hudhud hudhud picc bu ndaw la mais fàtte fàttewu ko mu baña a fàtte kenn mu xam ne Sénégal yëpp njabootam la moom moo leen bootewu loolu daal si gàttal loolu lañu sëriñ bi waxoon pour ñu wax leen ko incha allah ceerno Muntaga ƴeewi en 1946 o ƴeewi o andi fuutankoɓe ne keewi ɗo alaa ɗo ɓe payi ɓe nanata kadi so ɓe jehi tiwawon ɓe nanata ko haalete toon o wi jooɗoɗen ndenden mbaɗen o ƴeewi mawɓe makko ɗiɗo ceerno hamidou sy e ceerno dawouda sy ɓe noddi ɓe ɓen gonno mawɓe ɗo o noddi ɓe ɓe mbaddi mawlud maɓɓe to nokku no wiye rineuf galle ba biyeteɗo baba ɓe fuɗɗori ɗum ko peñ sukara e kas warga nde ɓe mbaɗi ɗum ha gasi mawlud o heewi fuutankoɓe ngari ceerno muntaga yii neɗɗo lorrata koddiɗo mum sabu galle on ko galle location wonno on wonno toon ko locataire ɗum noon o jeeya galle jam joom galle no wawi finde tan riiwa ceerno wiɓe mo wuuri noon mbaɗoyen ɗum gallam min jeeyi galle o ɗum noon ɗum woni addi ɗum en 1947 adda ɗo ɗo ri yimɓe gari ha heewi caggal ɗum joom suudu ceerno saydou nour no wiye koyta ari nootitaade heen yii golle ɗe no wayi yii yimɓe ɓe no mbayi heewde o rutti to ceerno saydou nour ceerno muntaga ñaagotaa ko ceerno saydou nour hay hunde yettii to makko o wiimo ceerno saydou muntaga ko mawlud mo waɗata o no mawni ɗum noon jiɗmi ko ƴeewanaaɓe nokku aɗa ɗum ceerno saydou wii miɗa jogii nokku de kono ko ladde alaa ko woni toon ko ladde ko dundu ɗum noon woni fas nden fas ko dundu ɓe njehi toon ɓe lewi ɗum kanko e yiɗɓe makko e almuɓe makko ɗum ɓe ngannduɗaa ɓiɓɓe mumen nan ɗo ɓe ngannduɗaa jinnaaɓe maɓɓe kamɓe ndenduno lewi ɗum ɓe pewni ɗum ɓe inniri ɗum halwar halwar on ɗon noon ɓe mbaɗi toon mawlud minen fof nde min pini min jii ko halwar no waɗe mawlud nde min njehi haa ceerno saydou yalti aduna ceerno muntaga wi kala ko dañ en ko ceerno saydou nour en ɗum noon so yehi no yooɗi enen ne ndenden e nokku ɗo woni eɗen yewtinamo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nden woni o itti mawlud o o nawti waɗi hen e sappo o ustani ɗum hamdulillah ko yettude allah ɗum noon ɗum yetti kala jiiɗo yi kala garɗo ma yi ko ceerno waɗatno fof koko ɓeydi ɗum noon ko yettude allah e yettude mo o hay hunde min mbawa hen e allah kanko so hawri e jinnaɓe makko woto allah yawnu o hersata sabu o waɗi ko foti wadde ko foof ɗum noon ɗum woni mawlid o mawlid o minen galle cheikh emin mbawi wadde mawlud tawa hay goto jillata hen hay jimol goto jillata hen saabu ma hakka jilduka misle sofrik kala ko ñañata ɓandu ma ko segene ma ɓuuri wawde ŋañade ɗum cheikh waɗi safinatu saada yetti hen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mantoje kawniɗi ɗe ko alif o ƴetti ha yaayi omo ƴetti ɗum omo jokki moni fof o waɗa hen o manta hen nelaɗo mantoje kawniɗi o haala hen sifaji kawniɗi ɗi ganduɗa safina o kadi no woni hen hikma ko dewal allah yuta abbadu bihi no rewre e allah saabu ko waɗi ɗum ko salawatu ala nabi e nelaɗo woni hen ɗum noon so tawi on safina noon ari eɗen gandi famde ɗum wona seeramɓe fof suusi ɗum wona seeramɓe fof andi ɗum saabu no waɗi lugaji ɗi ngannduɗaa cattuɗi seeɗa ɗum noon ceerno madani ƴeewi ƴetti commission gila 2000 ko adi covid o ɓe ndendi ɓe mbaɗi um, commissie ji waɗama feccama deftere nde kanko waɗi harfeje ɗe ko nawgas e jeetati e ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi lewru ko nawgas e jeenayyi ɗum noon o ɓeydi hen harfu lam alif o ɓeydi ɗum heen woni capantati ɗum noon rabiul awal goo so darima eɗen mbawi ƴettude harful alif ñalawma dewɗo hen ha ñalawmaji ɗi gasa tawa en ƴeewoyani goɗɗum foof en mbawata gasnude ɗum ɗum noon ko ɗum ɗon woni ko ceerno madani e ijtihad mum wona deftere nden ɗon tan deftere nde ɗo ko ceerno saydou nour windi ɗum kono ko ceerno madani lollini ɗum yaltini ɗum ɗum noon ɗiɗo foof ɗum noon safina o o wi yo safina o kadi ceerno sayid ceerno muntaga nde o gasni deftere makko aljawahir wo durar o wino min de heddani kam tan ko sarhinde safina kono allah hoddirani ɗum noon ceerno maɗani timmini ko yiɗanno ko ɗum ne jeeya e haqqe jinnaɗo e ɓiɗɗo ko yiɗanno so ronki wadde ɗum an wasiyaji makko timmina ɗum ɗum noon o timmini on wasiya deftere nde yalti fewnama muulama yalti ɗum noon emin tintina ɗum bandiraɓe fof emin teddinina ɗum bandiraɓe fof emin ganda noon wonko ko foti waɗede ko nusha goto tan yalti hen koko foti muulede koko foti tiirede yaltine nushaji kewɗi ha yimɓe mbawa dañde hen ɗum noon ko haalis ko haalis yaltinta ɗum ɗum moni foof yo tin anda kala baɗɗo hen ko hidma waɗi hen saabu ko gollande nelaɗo sallllahu alayhi wa moƴƴere min ñaago allah eɗen goni e élection paaɗen saabu eɗen gandi ko foɗodiral foɗodiral noon ma neɗɗo fof ko allah haadi ko ma won heen ma wood adversaire ma jiɗata ko ustude ɗum jiɗata ko ñukkinade ɗum jiɗata ko ƴeewde ko boni e makko jiɗata ko yaltinde ko feewani e makko ɗum ɗe fof no waɗa kono noon yoɓe mbaɗir e mon kono noon woto e ko ƴeewde moni fof ƴeewa ko oɗo moni fof adda programme mum ɗum min ñaagoto politicien ɗi moni fof yo addu programme mum waasa ƴeewde programme personnel neɗɗo wiyee kañum oɗo ko ko ceerɗo joom suudu holko nafata yimɓe ɓe yo haal yoɓe kaal koɓe mbaawi waɗande leydi ndi holko ɓe nafanta leydi ndi ɓe ngannda ko charge woni heen responsabilité mawɗo ko amana ko hoolaare ƴettude laamu ko hoolaare sabu hoolaare nden ɗon ka namdeteɗo ɗum janngo ɗum noon so tawi a felliti aɗa ƴetta laamu ngu ya tinno nunɗa hen balla ɓesgu ngu fof ganda ɓesgu ngu fof koye zillu ma woni koye ɓuɓri ma woni teddinaɓe mawninaɓe jeccitoɗa mbaɗa no souleyman la aral hudhuda woto ɓe jooɗo tan e cuuɗi maɓɓe ɓe ƴeewa leydi ndi ɓe mbaɗande seyna oumar waɗatno yaltude jamma ne ƴeewa holko woni e leydi ndi holko woni e feewi ko feewi kono keɓa pouvoir tan keɗa e nder galle ma a anda ko yahata miskineɓe nan maaya ɗiɗo fof ko responsabilité ma an jogorɗo ƴettude ɗum noon ko amana neɗɗo fof no foti hulde ɗum janngo ka namneteɗo ɗum ɗum noon ko ɗum ɗo woni komin jinno yettinde e raɓɓiɗinade wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala eh, e yamirore ceerno madane e wondi mum fof welama mawɗo tawtorede oɗo jamma moƴƴere malande kala julɗo ma allah rokki wuuri ha tawa ɗum ko malaɗo eh, ceerno seydou nuru nane e nder eh, haala mum haali holko woni lasli oɗo jamma ɗo e galle ceerno muntaga galle ceerno seydou nuru galle cheikh oumar gila 1946 ha joni ɗum wuuri o haali fof no yaari mi artata hen par que no haaliri ni ala bawɗo haalde ko ɓuri kono jiɗmi ko ɓeydude hen no o jamma mawnirteɗo ɗo ni ko ni o mawnirteɗo e sénégal foof kala to biwo mbimi woni o saaha joni tantaji ne pewna burdo waɗama no burdo waɗite tiwa on ni e jamma hande o inchallahu rabi ɓen jimmanulaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam e nder lasliɗe min jimata ɗum ɓe jimino noon ɗum koye e, batuji cheikh oumar eko cheikh oumar windi ɓe jima nde alhaji malik ari eko yimata kañum ne ɓe ɓeyddume hen joni sa yeehi jamma nulaɗo allah sallllahu taala alih ha genare damga booseya fof to jaɗa mi diwi booseya kono booseya ko hen jeeya kala to mbawɗa yaade hen ma yi hen jamma o ene yime ene beyte eko cheikh oumar ligguino eko alhaji malik ligguino eko goɗɗo ligguino par ce que fotankoɓe ko jangguɓe hande o ala fotanke keddiɗo dakar saabu ɗum kam fof ɓe jeeyi yimɓe cikka noon nden gammu ko tuya won gammu ko sénégal fof hannde alaa ko heddi sénégal alaa ko heddi dakar kono to fuuta to hannde sinno neɗɗo ŋabbino dow waɗi satellite satellite o fawema e fuuta mon jii lampaji kewɗi kuɓɓi e oɗo jamma alaa wuro ngo lampaji kuɓɓani ɗum noon yettere allah no feewi futankoɓe ne nganndi nulaaɗo sallllahu taala sallam en mbawi mawnin ɗum alhamdulillahi rabbil ko ɗum tan jinnomin tintinde en alhamdulillah on jarama Euh, Cheikh Oumar Sy, membre de la commission Ahbab, les amis de Cheikh Oumar. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le miséricordieux, le maître des ciels et des terres et des cieux et de l'univers, nous sommes ici aujourd'hui présents pour célébrer la naissance euh, le sceau des sceaux des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion et pendant cette cérémonie officielle où l'adjoint au euh, gouverneur à représenté l'État. L'imam de la mosquée omarienne a rappelé l'origine du Maulid Nabi ici, dans la maison de feu Tcherno Muntaga Tal. ce, ce ici dans cette maison-là, qui a débuté euh, avec euh, la première en 1900, euh, il y a 77 ans, dans la maison de Baba Ndiaye, un, un petit foyer qui a abrité la première communauté Harpulaar grâce à l'entrejean de Thierno Mountaga qui avait en son temps remarqué que la communauté Harpulaar ici était forte et qui avait pris sous l'autorité de Thierno Seydou Nourou Tall, qui était, qu'il était venu retrouver ici à Dakar, d'initier ce Maouloud-là qui aujourd'hui a fini par rassembler toutes les communautés confondues, qu'elles soient Halpular, Wolof, Sosé, Diola, ici à Dakar au niveau du Raouda. Bien avant ça, c'était à qui a été une partie qui se trouvait à face, où Tcherno Seydou Nouroutal, euh, sous vraiment la, sous la requête de sa femme, euh, notre grand-mère Gogo, Gogo Koeta, qui lui avait demandé d'assister son neveu gendre Tcherno Muntagatal dans ce maoulid-là. Et donc, Halwar a été le premier lieu à accueillir euh, le maoulid al-Nabi, après celui de Baba Ndiaye. Et depuis lors, s'est célébré ici à Dakar. N'oublions pas aussi de magnifier les rapports qu'il y avait entre Tcherno Seydou du nuru Haj Maliksi, à qui il avait dit j'ai un pacte avec vous et je ne ferai ici autre chose que ce que vous, vous avez déjà fait et vous suivre et suivre vos Si c'est le Gamou, je le ferai avec vous. Si c'est le Wazifa, je le ferai avec vous. Si c'est le Lazim, je le ferai avec vous. Autant d'histoires donc pour euh, aujourd'hui la célébration de ce Maulid al-Nabi. Et dans cette circonstance-là, nous prions Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous accorde la paix dans ce pays et surtout vers les élections euh, présidentielles de février 2024. Le Khalif prie pour toute la famille et toute la communauté, quelle qu'elle soit. Nous sommes plus de aujourd'hui de 17 millions de Sénégalais, dont 90% célébreront aujourd'hui dans tout le terroir la naissance du prophète et à travers le monde. هو للخلق رحمة وشفاء صل يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء كيف ترقى ربيك الأنبياء يا سماء ما داولتها السماء صل يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء لم يساويك في أولاك وقد هان حسنا منك دونهم وصنعوا يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة موصلها أنت مصباح كل فضل فما تزور إلا أنت إلى الأدواء يا ربي ثم سلم على ما هو للخلق رحمة والشفاء لم تزل في دمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء صل يا ربي ثم سلم على ما وللخلق رحمة والشفاء ما مدت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء صل يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة والشفاء